bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin allahuma salli ala seyidina muhammadin ilfatixi lima ugliq walxaatimi lima sabaqa naasiri ilxaqi bilxaqi walhaadi ila siraatika almustaqimi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari alazim wa radi allahu taala an asxaabi rasulillahi sal allahu alayhi wa sallama wala xawla wala quwata illa billahi alali alazim ya himmata cheikh waxduri لنا بهذا المحضر والتعطيب بنظرة تأتينا بظفر بعد أن مدد أخرى الحضرات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi nuyu jotaay bu tedd bii ci barab bu tedd ñi sos ko it ngir ziyaare wàllu yu ci wàllu yàlla yi muy cheikh alxaaj Mouhamed Zeynab te góor ñi dañoo wax ne man sabatat wilaayatuhu wajabat xidmatuhu ku sëg wilaaya sax rekk sa xidma war nañ laa xidma ñu ngi nuyu suñ nijaay cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ne mooy borom jotaay bi buñ ko nuyoo nuyu nañ ay rakkam yi suñuy nijaay yëpp Cheikh Tidiane mi fi jógee léegi suñu nijaay Cheikh Seydil Arabi suñu nijaay Cheikh Ibrahim waaye di nuyu Cheikh Mouhamed Khalifa ni Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ci teewaayam bi nga xam ne bu teewee utu na ñi daan teew yëpp te teewuñ cheikh alxaaj Mouhamed Zeynab cheikh Ibrahim alxaaji Ousmane ak seeni doom ak seeni rakk waaye di nuyu eh, Papa demb bi tey nga xam ne agsi na léegi li cheikh Bachir wax ci moom kenn du ko paase eh, liggéeykat la pour Sénégal yëpp. liggéeykat nag foo dem rek dañuy foog ne yow ñoom ngay liggéeyal waaye pay bi dañuy kontaan am doom ju mel ni moom mu taxaw ci gouvernement Sénégal di liggéey liggéey boo xam ne bu fekkoon ne Medina dañ koo gërëm dégg ñeneen ñi gërëmuñ ko boobaa danañ am jaaxle ci loolu waaye sénégalais la buy liggéeyal Sénégal confiance bi nga xam ne moom la président am ci moom ba jox ko liggéey bi lu taxaw ci taxawaay bi mu ci war a taxaw xam nañ ci lu bari loo xam ne lépp dafay dellu rek ci njëriñal Sénégal kon ñaanal ko ñaanal Sénégal la buñ koy ñaanal it mooy ñaanal ay kilifaam ñaanal réew mi yàlla def fi jàmm comme li Cheikh Bachir wax ndax bu taxutoon ak jàmm gi duñ mën a def jotaay yi ñuy def di nuyu euh, Baba Ndiaye waaye di nuyu suñu rakk oustaz Cheikh Ahmed Boucar di ko gërëm ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne moom la am ci jàng ak jàngale ak gëstu ci conférence bi mu fi def ci dund Cheikh Alhaaj Mouhamed Zeynab nga xam ne lépp daf koo teg ci ay gëstu yoo xam ne sukkandikuwaay yu dëgër buy ci kër maam xaaji la aju buy ci tariqa bi la aju buy ci biti la aju loolu ku nekk xam na ne jafe jamono fi mu ne nii ak xat-xataay jamono ak bëri bëri soxla yi kuñ def loo euh, conférence nga def ko ci shaxsiya bu mel ni Cheikh Alxaaj Mohamad Zeynabu nga xam ne moom ci boppam bind na lu bari loo xam ne dellu ci nit kuy gëstu mën nga cee defee conférence li mu wax euh, sànq ne docteur Ousmane Dia wax na ko ci téereem boobu wax ne ñu mel ni professeur Amadou sàmm yi nga xam ne dañoo bindoon ci ëdëbal arabi Sénégal yi bàyyi boroom xam-xam ëdib bu mel ni euh, Cheikh Alhaaj Mouhamed Zeynabu taarix du ko jéggale an kay taarix dana ko jéggale ndax ñoom ñoo euh, xacc yoon woowu ba ku ñëw mën a gis ne am na lu manqué ndax doomi aadama du matal waaye dafa bëggoon a wax rek ne dëgg-dëgg kenn warta jàng ëdëbal arabi ci Sénégal fi mu toll bàyyi boroom xam-xam xaama ilmiya ëdëbiya bu mel ni Cheikh Alxaaji Mouhamad Zeynab nga xam ne moom doy na misaal pour wane madrasat alxaaji abdullahi fan la toll ci xam-xam ba boroom xam-xam Mauritanie yi nga xam ne ku nekk xam na ni leen yàlla may ci luxal arabiya mu ci bëri dañ daan ñëw kër alxaaji abdullahi waaye dañ leen daan tudd alxaaj Mouhamad Zeynab mu ne leen am na ku fa nekk nag koo xam ne moom nii la mel naa la mel waaye kuy wax arab ci kanamam di bind ay bayti ci kanamam na nga bàyyi sa xel ci moom ndax moom imru xaysi sax bu bindee xaside ci moom am na lum ci euh, wax li Seydi Cheikh Bachir wax ne imaam Cheikh Tidiane moo ne bàyyi baax na waaye alaaji it baax na ndax baax baax rek la baax baax rek la ndax benn madrasa la bi nga xam ne mooy madrasa alxaaji abdullahi waaye lam wax noonu sëriñ Moussa Ka daf koo wax ba muy tagg bàyyi ba ak si jaaraaj moo zéné bu daf ne taxaw nu naa waaju baax taalibi si ahmadou bamba la taxaw lu naa waaju baax day mel ni ahmadou zey magam janaan sama mbir jox naa ko barhama koo xam ne balaa juddu bala ngaa juddu fekk na ba ngay juddu fekk na moom mu tari alquran fekk géeju ci xam-xam mu nangul la loolu rek doy na dayooy baax mu ne lahu fadailu laa tuxsa bi kaaxidatin réyul xañaanut te am xam-xam ne barxaama am na ay ngeneel yoo xam ne mu ne kenn mënu koo bind sax ci kayit waaye réyut añaanut te am xam-xam ni barxaama kon ay boroom xam-xam ñoo wax loolu boroom xam-xam ñoo wax ay mbaaxam Euh, melal yi nga xam ne moom la Cheikh Ahmed Boucar nga koy wax Baye di melal Seydi Ali Seydi Ali di melal bàyyi ci Kaashiful Ilbaas Baye bind na Alxaaj Mouhamed Zeynabu ay leetar yoo xam ne loolu la koy adressé cheikhu bi jami maratib yi nga xam ne sëriñ la ci mbooleem martaba bu ñuy doxee sëriñ ndax am na ku jàng alquran ba wëttu ko jàng alquran ba xam firéem jàng arab ba xam ko jàng hadis ba xam ko jàng fiq ba xam ko foofu la em waaye am na koo xam ne passé na loolu fexe na ba feey ci géej gi nga xam ne ci la góor yàlla yi di feey ba bàyyi waxoon xaaj Mouhamed Zeynabu ne ko sa dolleeku ci yàlla fi kulli nafasin daruriyin indi li annaka mazharu min mazahiri alxatmi tijaani sa dox bi ngay dox ci yàlla ngay dolleeku ci gendeeku bu nekk bàyyi ne ko loolu maanaam lu mënta ñàkk la pour man parce que yow feeñuwaay nga ci feeñuwaayu Cheikh Ahmed Tidiane kon kooku lañ doon dajee tey pour ziyaare ko ñu ngi yàlla baax na ñun duur ne dañoo ñëw Kër Yoro rek door a door a ziyaare ñun tey jii ba muy ziyaare bàyyi man ziyaare naa ko waaye dañuy ñëw Kër Yoro pour dëggal loolu dëggal li nga xam ne moom la ñuy dund ndax xol yi ku nekk mën ngaa toog rek ne soo mbokk di éene naa ko nangam doomam yii nag mu bàyyi fii yàlla def ñuy suñuy nijaay di suñuy ay mbokk di doomi bàyyi di ay yaram ñi nekk ci pay bi nga xam ne lépp lu baax lu nit ñi nekk dëgg-dëgg ñu ngi ci nekk ak nit ñi bu fekkutoon ne dañuy dajee pour ziyaare wàllu yàlla bu mel ni moom sax ñoom ñii bu ñu ootee kër yoroo nit ñi war nañ leen fa fekk si ndax luñ lu nit ñi oote ñu fekk si leen ci ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla gën leen a sàmm yàlla wattu leen wattu seeni njaboot barkeel njaboot gi ba nga xam ne lii Seydi Haaji Mouhamed bu ñaanoon barke boobu dana feeñ ci ñëpp feeñ ci njaboot gi feeñ ci ñun ñii ñëpp te ñu ngi sant yàlla mi nga xamee ne ñi ngi koy teewal di ko ziyaare tey ba ba ay mayam ci yàlla mooy dotteeku bët bu set ndax ñu ngi nii doon déglu léegi ay sëtam yu jigéen ñuy jare alquran te doon ne ñoo ñi jiitu te incha allah ñu nekk mu ku ñuy mujj ñoom it yàlla barkeel seen alquran yàlla teg ci xam-xam teg ci xam-xam buy jëriñ teg ci njub teg ci barke ñi ngi ñaanal daara ji nga xam ne tim ci lañ neewoon daara imaam Hassan moo ko sos di ñaanal eh, yàlla yokku leeram di ñaanal sëriñ daara bi di ñaanal Ousmane Diop mi nga xam ne nii sëriñ daara yi gënuñ koo sonn ci jàng xale yi yal yàlla fay leen yàlla yàlla jëflanteeg yéen ci kem gi ñu ngi ñaan yàlla ci barke ziyaare bi barke borom ziyaare bi barke ziyaare ante ngir yàlla ci barke tëbbu yi nga xam ne nii e, doon na jaar ci diggante Haaj Mouhamed Zeynab ak Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ba bàyyi di bind e, kenn ci muqaddami baayam yi di ko wax ne ko sa dëkkandoor boobu alxaaj Mouhamed Zeynabu aarif la te xaw ci moromam yi xaw ma bu mel ni moom jàppal ci moom nga jëriñu ci kooku nit dana doo wàlliyu te du doo aarif waaye aarif bu nekk wàlliyu la kon aarif boo xam ne min kibaari aarifina billaahi min kibaari awliyaa illaahi tabaaraka wa taala xam ne liggéeyal nañ xam-xam liggéeyal nañ lislaam liggéeyal nañ tariqa tijaaniya liggéeyal nañ seen waajur nga xam ne alxaaji abdullahi nga xam ne bàyyi neewoon na lépp luñ nekk ci lu baax rek ci mbaaxam yi la alxaaji muhammad zeynabu miitim kenn la ci mbaaxi alxaaji abdullahi yooyu yal na yàlla fayal ñu ko yal yàlla fayal ñu alxaaji abdullahi yal na yàlla nangul ñu ziyaara bi lépp lu ñu fi ñaan yal na ko yàlla nangu képp ku fi ñëw yàlla nga dellu ci jàmm ànd ak fajoy aajo ak ci zahir ak ci batin yàlla wëttuñu ñu ngi ñaan ci barke ziyaara bi yàlla def jàmm ci senegal yal yàlla def jàmm ci Sénégal yal na yàlla def jàmm ci Sénégal yiñ bëgg yépp muy ay yokkute démocratie droit de l'homme ak yii yépp nañ ko am fekk ñi ngi nekk ak suñ jàmm ndax ku am jàmm rek mooy mën a yëg ne loolu mu ngi fi mënuloo yëg ne am nga démocratie te amuloo jàmm mënuloo yëg sa droit yi agsi na ci yow te amuloo jàmm kon lépp destination bu ñu mën a jëm rek yàlla nañ ci jëm ànd ceeg jàmm xat-xat bii nga xam ne Sénégal ci la nekk yàlla euh, baaxam ci Sénégal Sénégal yàgg naa jaar ci ay guddi yoo xam ne dañ naan bët du set bët set na seteti bés yi itam yàlla na romb ci jàmm bañ dellu ci Sénégal bi nga xam ne moom lañ xamoon dellu ci Sénégal bi nga xam ne li sénégalais bu nekk di gént am sénégalais boo xam ne bu stable la bu nekk ci jàmm la jàng mi jaar ci yoon nit ñi tegu ci yoon wi wi ñu war a tegu eh, ñi nguur dox ci loxo jugee ci loxo dem ci yeneen loxo yi nga xam ne moom lañ pare pour mu dem ci waaye mu demee ko ci jàmm yoo xam ne nii ñun danañ xam ne jàmm la ci barke borom ziyaara bi ci barke baayam alxaaj abdullahi ci barke mawlaana cheikh ibrahim radiallahu anhu ci euh, bi jaahi xatmi tijaani wa bi jaahi mawlaana rasulillahi sallallahu alayhi wa bugguñoo ga guttal ndax waxtaan bi gudd na ba pare te am na njëriñ Cheikh Ahmed Boucar yal na yàlla yokku la yàlla yokku la xam-xam yal na yàlla yokku la tal yal yàlla yokku la may xam nañ gëstu ni mu jafee ci jamono jii jamono ju xat la xam naa ne daal ñun liñ soxla moom nga soxla yàlla na la yàlla yombalal ba nga xam ne li nga war a uti yàlla dana la ko yoor ba nga xam ne gëstu yi nga nekk muy yoon boo xam ne amuñ benn sikk ne liggéeyal xadara bi liggéeyal diine ji la ñiy wax bëri na lool ñiy wax di yàq bëri na lool ñi xam lu yàq ñu ngi koy wax kon ñu xam lu baax war nañ ko di wax jazakumullah an islami xayran wa jazakumullah an xadrati cheikhi xayran wa jaza allahu anna axwaalana alladina wafaru lana fursata ñi nga xam ne ñoo ñi may fursa bañ mën a toog ci daje bi dajeeg sette yu baax yi ñu tudd ak ñu tudd muqaddam yéeg ñu ngi nuyu waa Kër Yoro ñu ngi nuyu uh, Serigne Ahmed Ndiaye ak mboolem ñi nga xam ne jaar nañ fi te teñ war leen a tudd ñëpp mënuñ leen a tudd waaye ñu ngi teewlu ñëpp ñu ngi ñaanal yëpp na yàlla nangul ñu ñun ñëpp nangu goo xam ne ku nekk da ko yëg ci sa bopp ne ziyaara naa ci yàlla amee ci eh, tëbb dolleeku ci zahir ak ci baatin yaa rasulillahi sallallahu alayhi ñu ngi gërëm tim oustaz Ibrahim bi tey eh, nga xam ne moo amee woon micro central bi eh, liggéey na bu baax góor góorgóorlu na bu baax bu laajee xorom def na xorom waaye góorlu na bu baax pour jotaay bi mat comme ni mu war a matee jazahullahu xayran ñu ngi nuyu suñ jigéen ñëpp ñaanal naa ko yow da ngaa bëgg ma ñaanal la mu jox la li nga bëgg baax na yéene ko ci sa xol bi bismillahi rahmaani rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi rahmaani rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad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 ulaayika ala hudan min rabbihim wa ulaayika hum muflixuun sadaqa allahu alazim wa balaga rasulu saadiqu alamin wa huwa asdaqu alqaa'iliin almusaddiqiin wa naxnu ala dalika min alshaahidiin wa bihi muminuun musaddiquun wa laa xawla wa laa quwwata illa billahi aliyil aziim wa radia allahu an saadatina abi bakrin wa umara wa usmaana wa aliyin wa talhata wa zubayrin wa saad wa saciid wa abi ubaydata bni jaraax xamzata wa abbaas wa jacfarin wa aqilin wa alxasan wa xuseyn wa faatimata zahra wa xadiijata wa aishata wa an saa'iri ummahaati almuminiin wa radia allahu an ashaaba rasulillahi salla allahu alayhi wa sallam ajmaciin أجمعين وعن التابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا اللهم نور به قلوبنا وقبورنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا ووفقنا لما في رضاك عنا اللهم اجعل القرآن العظيم أمامنا وقائدنا إلى الجنة ولا تجعله خلفنا سائقنا إلى النار اللهم اجعل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 ولنا بها صلاح إلا أنتنا على قضائها في يسر منك وعافية إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته وحلاوته آناء الليل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 واكنفنا في كنفك الذي لا يرام واجعلنا في جوارك الذي لا يغفر ولا يضام اللهم ندرأ بك في نحور الأعداء ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم إنك أعلم بأعدائنا وكفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنسانا وحاضرنا وغائبنا وحرنا وعبدنا وطائنا وعاسنا آمين اللهم اغفر لنا أجمعين وتوفنا مسلمين واحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واكفنا ما أهمنا وما لم يهمنا anna min umuri dunia wa din wa kuffa anna aydiya almuctadin wala tajcalna fitnatan lilqawmi alzalimin ونجنا برحمتك من القوم الكافرين واجعلنا من عبادك المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أرنا الإجابة عينا حينا في أنفسنا وفي أهالينا وذرياتنا وأصحابنا وخدامنا وأحبابنا وأنصارنا من حضر من الجميع وغاب وزدنا واعتنا وارفعنا ودافع عنا واحفظنا وسدد أمورنا ورح أبداننا وقلوبنا واجعل خير أيامنا يوم لقائك واسترنا بستك الجميل وعاملنا بلطفك الجزيل وفضلك الجميل وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق